aussi président Macky Sall yaa ngi koy jàppale bu baax ba ku dal ci moom yow tamit nga dal ci moom Ousmane Sonko nag mu doon cible entre guillemets yéen ñaar defante bi su waxee jox la nga jox wax tontu ko euh, loolu lu tax kii defante boobu ci politique. non xam nga Ousmane Sonko dafa am luñ ñu koy jiiñ xam nga fii Sénégal dafa am ay yoon yu fi nekk mu yoonu Serigne Touba yoonu El Hadj yoonu Mame Baye Niass ay tarixe dafa am. moom nag gars yi dañuy wax ni ibaadu la te ibaadu yi gëmuñu Serigne waa gëmuñu El Hadj Malick gëmuñu kenn amuma nag benn problème ak benn ibaadu ah mais moom gars yi dañ koy jiiñ salafiste tey jii ku mel ni Bruno jaata servir Sénégal pendant 40 ans xëy décédé ñu jël ay invitation invité képp koo xam ne tey jii yaa ngi def politique ci réew mi Ablaye Balde keroog bi muy ñëw foofu Casamance sa jóge moom ñu wax ko mu ne dañ ko yeexal invi yeex a indil invitation moo tax ñëwul. donc man damay jàpp ni li ñu koy jiiñ ni salafiste la dëgg la parce que salafiste du jaale chrétien du ñu jaale catholique te Sénégal dëkku jaloog la dialogue islamo-chrétien la ñu wax donc musulman yi ak chrétiens yi dafa am lu ñu bokk dëkku paix la Sénégal donc mun fi nekk di aspirer yor réew naan ñi jiit ñi mas a jiite Sénégal depuis 1960 ba léegi dañ leen a war a rey te ku leen rey doo am baakaar parce que al rek ñooy rey xalaat ni bu ñu reyee duñ ci am baakaar al rek mooy rey ci àddina bi yaakaar ni bu reyee du am bàkkaar donc boo nee depuis 1960 ba léegi ñi fi mas a jaar ñëpp teew tey jii système bi ngay wax baaxul ci nga jàng ci nga am ay soxna ci nga am diplôme ci nga nekk inspecteur des impôts ñu lay fay xaalis bu dul jeex di la jox xaalisu dëkk bi yow nga ni système boobu baaxul 1960 ba léegi sengoor jaar fi du Diouf jaar fi Ablaye Wade jaar fi Lamine Gueye jaar fi Blaise Diagne jaar fi léegi nga ni ñoom Blaise Diagne ak ñoom ñëpp tekkiwuñ dara yow daal yaa tekki benn booy bu prétentieux yow kenn xamul foo jóge kenn xamul alkayda nga kenn xamul salafiste nga kenn xamul lan nga gëmoo sëñ Touba gëmoo alaaji Maalik gëmoo kenn xëy suba teel di insulté ñëpp di saaga ñëpp di ji ñëpp ay sàcc bërki démb la taxaw ni Mamour Diallo sàcc na 94 milliards kan moo koy sàcc ci réew te kenn du la jàpp am na wax yoo xam ne bu dofee tamit nopp yi koy dégg dofuñu ñun ay sénégalais lañ dëgg la nit ki mën nga contre gouvernement mën nga contre politique mais am na wax yoo xam ne soo ko déggee xam ne wax yi yanul maanaa. ci màggalu Touba yi autorité yu bëri ñëw nañ ziar ci sëñ bi euh, kon tey sànq bi nga say kàddu yaa ngi naa ne euh, Ousmane Sonko salafiste la en même temps que ñoom du ñu jaale chrétien du jaale lii kon moom ziaram Touba yow nan nga ko gisee nangu nga ko. mais xam nga wax jooju dafa siiw moo tax tey jii bu ñëpp commencé di ko wax nii dafa am fu mu bokk wala dafa am lu ñu koy jiiñ il faut mu dindi tuuma. ñëw fii Touba mais nit mën nga ñëw tuubaa te gëmoo Touba am na ñoo xam ne dañuy ñëw Touba fii te gëmuñu Touba parce que xam nañ ni Touba tey ji décision yi am yëpp ci dëkk bi waxuma la ci dëkk bi mais ci àddina bi Touba daf ci bokk moo tax ku sañ ta bañ sañ nangu ngay def da ngay ñëw di wane ni yow gëm nga sëñ Touba mais gëmuñu ko tey ji man je suis moom mu bind benn livre boo xam ne daf ni livre bi solution la tudd même politique culturelle am pour moom dafa jàpp man pour ñoom dañu jàpp ni sabar ak caaxaan la les salafistes là politique culturelle am sax man gisuma lu mu wax ni bu jëlee dëkk bi da ko siy def donc ça veut dire que ni man bu ne gëm na sëñ Touba man gëwuma ni dëgg la ci moom parce que murit bu gëm sëñ Touba da ngay jébalu di dem xel kom di ñëw fii ci jumaa ju ñu lay gis ñun dañuy dem xel kom at bu jot doon ay taalibi sëñ Touba bu màggal jotee ñu gis ñu fii ñuy dox ci taatu jumaa ji di joxe addiya mais yooyu yëpp doo ci def dara ba pare ni sëñ Touba nga gëm ah? Ah? kenn du ko def